asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah vendredi 3 mai 2019 ñu ñëw ak yéen ci yëglikaay yi yëglikaay yi nag tey sunu làmb lay doon ak Leewtoo point net wala Leewtoo TV sunu làmb nag fële nu koy njëkkee ka fu fa fay xëy fekk daal mooy Ama Balde doomi Fàllaay Baldé sulli bu ndaw bi comme ni ñu koy wooye ci lamb ji amaa nag bu mu xëyee daal tey ay dëggam la xëy di ko wax jëmale ko ci Modou Lo Siteu ak kii nga xam ne nii moo di Eumeu Sène bu dee Modou Lo la moom amaa li mu jàpp mooy nee na man ak moom suñu diggante règlement de compte moo ci am loolu mooy waxe Ama Baldé nee na diggante ak Modou daal règlement de compte la boo xam ne nii mënta ñàkk nee na même ay beeke sax bu doon da koy yor wala mu yor dina ñëw moom ñu jàmmaarloo bëree mu ne ko digganteem ak Eumeu seen mu ne ama moom li leer ba leer xam na li koy xaar diggante ak kii nga xam ne nii moo di Modou Lo koy daan te na sax man su ma seetsee man Ama bu ma Eumeu Sène seetsee ma wax ko liy daan kii nga xam ne nii moo di Modou Lo nee lu yomb la sarax la boo xam ne daal jafewut te man xam naa ko te buy ñëw ma di ko ko wax te sax nee na li leer ba leer sax Modou Lo moom Eumeu da koy daan loolu moo di waxe Ama Baldé tey bu dee côté Siteu la moom nee na bés bu nga xamee ne nii daal bés jot na ma war a dajeek ak Siteu nee na bés moom bés bu ñëwee wala mu jot damay toxu fii nga xam ne nii moo di Pikine loolu moo di waxe Ama Baldé tey ci yëglikaay bi nga xam ne moo di sunu lamb mbokk ma Sa Thiès tamit xëy na di wax moom daal yëglikaay bi di sunu lamb tamit xëy na dalal ko mu ngay wax ca couronne roi des arènes ba nga xam ne daal bëgg na caa teg loxo bés di wax tamit ci kii nga xam ne nii moo di Lac de Guiers numéro 2 koy conseil ci digganteem kii nga xam ne nii ni moo di Boy Niang moom daal am na yàqin ne daal le 14 juillet bu ñu ca yeggee daal ah Lac de Guiers 2 mooy ki nga xam ne ni daal yaakaar na ne dina feree ne kii nga xam ne moo di booy Niang mi nga xam ne dugg na géej waaye duggati fa te sonal leen lool lool lool loolu moo di waxi Sa Thiès waaye laaj nañ ko ci diggante Garga Mbossé ak Moussa Ndoye ne na ñoom ñaar daal ay jàmbaar lañu entraîné nañu wane nañu tamit jom ak fulla ak fayda neexal amateur yi ñëwoon ca stade ba ba mu neex ci ñoom lool ñu bëre Moussa Ndoye ñàkk ne na loolu nag mooy sport ne na defet la am match nul ak nee moo tax nag mu ngay félicité garga di encourage Moussa Ndoye ñu ne ko Moussa Ndoye lu ko daan Sa Thiès mu ne lenn dong laa ci gis daal xëy na daa am loo xam ne daan na ko def te da koo bàyyi maanaam moom bi mu ñëwee déglu ba la jàpp ne daal wuru ko def xëy na attaque boobu mooy li ko waroon ñu ne ko waa léegi nag yow yaa ngi toog di xaar foo jëm mu ne man de fi ma jëm fi mu nekk wax dëgg yàlla ah nee na daal bëgg naa bëre waaye nag tudd adversaire moom du ko jar comme dara lu leer amagul daal nee na moo tax moom jarut mu nekk fi daal naan kii lay doon wala kële loolu waxi kii nga xam ne nii moo di Sa Thiès la ci yëglikaay bii nga xam ne nii moo di sunu làmb ba tey bu nu continuer nag dañuy ñëw fii nga xam ne nii ba tey moom mooy ca leewtoo point net leewtoo point net nag la ñu fa fekk daal moo di jàkkaarloo bu war am suba Kër ma Massar diggante Gris 2 ak ki nga xam ne moo di Reug Reug mu mel ni léegi Nicolas daal moo fa jaar yi ñun ñooy xam ne daal suba la ñu war a jàkkaarloo waaye leneen loo xam ne tamit jàng nañ ko fa muy bëri jigéen ñun ñooy xam ne daal le 28 le 29 ba la 30 juin bii ñu jëm day ñu def benn démonstration fa nga xam ne mooy ca Mbour ca leewtoo point tey ak ki nga xam ne nii ba tey leewtoo point net moo ko wax yax yi jub Yékini mi nga xam ne nii moo fi nekkoon roi des arènes sargal bu ñu koy sargal fa nga xam ne moo di ca sowal ci dimanche ji nga xam ne ca la jëm ba tey bu ñu continuer ca Leewtoo TV moom Assane Ndiaye mu ngay waajal dimanche ci combat bi nga xam ne moo dox ci diggante gin bu yof ak ki nga xam ne mooy tonnerre bu écrit ndakaaru mu mel ni ki nag ñaari mbër yi moom seenub jàkkaarloo safoon na sàpp kera ku dem foofa daal ci Leewtoo TV moom di nga fa fekk ñaari mbër ñuy defante waaye ñoom ñaar ñoo ña nga xam ne nag war nañoo bëre am na koo xam ne day mu ngay joxe xalaatam ca seen combat muy salba salba daal la mu xam ne daal ne na kii nga xam ne nii day moom moo di tonnerre adversaire bu naqaree daan la waaye kii nga xam ne nii moo di gin tamit xeex moom mën na ko lool waaye bu ñu continuer ba tey dem ca sunu làmb andi lañu tamit beneen combat boo xam ne samedi lay am te Fallou Ndiaye tëgg ko mu war a jox ci diggante aara Fass ak kii nga xam ne nii moo di ondu la fu Sawru Fall di ab ménage nekk ci Ndakaaru mu ngay wax ne na ondu la fou day lii nga xam ne nii mën na koo dimbali ci combat bi mooy expérience daal mën na koo may faveur bu ñu ca yeggee waaye aara Fass nag moom la jàpp ne moom moom mooy favori kombaa ba Saourou Fall moo xëy tey di wax loolu nga xam ne nii moom la wax wala boog mooy gis-gisam fii nga xam ne nii moom moo di sunu làmb waaye li leer ba leer daal tey moom ajjuma la tey moom 3 mais la tey moom xanaa ñu balu ñëpp ak tey baal ñëpp ak. Taala Njaay di wax ni képp ku ñuy dégg rek ak foo mën a ne ci àddina bi ñu ngi lay ñaanal jàmm di ko sàkku ci yow taala ñi ci prison yi yal na ñu génn te bañ a defati lu leen fay duggal ñun ñi fa demagul yàlla bu buñ fa dem ñi feebar yàlla na ñu wér ak jàmm ñi dëddu tamit yàlla na leen yàlla xare àjjana ndax nag taala njaay tey la àjjuma ji nga xam ne ni moo mujj balaa ñuy dugg ci weeru koor bi ñuy wax saxru ramadan weeru ngëneel wi waaye taala taala ndax di nga woor lii lay laaj est-ce que taala ñi mel a koor yàgg ndax di nga woor yow itam. salaamaaleykum mbokk yi suivre Leewtoo TV ñu leen nuyu di leen ziar bu baax ci àjjuma ji di leen baalu àq te di leen euh, baal àq ñu ñëw ak yéen ci seen euh, revue de l'arène comme ni ñu ko defee chaque jour ànd ceeg sama mag sama xarit euh, Babacar Babacar nuyu naa la. maa ngi lay fay ay sa fay ah madame Nia sama rak sama xarit Serigne Moussa Nia maa ngi lay ziar tamit ci àjjuma ji di la ñaanal jàmm ah. te di ko saaku ci yow di ko ñaanal bépp doomu Sénégal wala képp ku ñuy suivre bokk di ñaanal jàmm tamit àdduna bi yëpp daal wax nekk daal Aïssa jàmm ci la lépp xaj macha allah maa ngi lay bëggee lu bëree bëree bëri. jàmm ci la lépp xaj Babacar moo tax ñu koy sàkku euh, chaque jour ñu dugg si waxtaan bi ak li nga xam ne tey moom la suñu lamb andi muy kii di Ama Baldé moom euh, ba tey bàyyiwul kii di Modou parce que nee fu Modou jaar. ñoom ñaar dinañ daje tànk ci suuf jaan ci suuf yàgg yàgg daje bu doon yori beeki sax dinañ dina teg yi ñu bëre parce que moom moom <laughs> foog mu daje ki nga xam ne ni mooy Modou Lo waaw Ama daal daa mel ni kon su ma déggee ay waxam carrière bu ko bëree ba pare ba mu jeex te bëriwul ak Modou Lo ça veut dire que dina am lu ko naqari parce que koo dem ba ne même bu yoree ay beek dina teg beek yi ñu bëri moom ça veut te xam naa ñaanal mu lu mu am ay beek xëy na waxin la ah loolu nag li wan mooy que ni rek xëy na euh, ñoom ñaar règlement de compte bi mooy bëri woon fi mbapat ay jamono ca parcelle Modou daan ko xëy na loolu moom la ba tey loolu nag ci mbër mën nañ koo tuddee jom ak bëgg a fayu waaye itam ki nga xam ne ni mooy Modou Lo yaakaar naa ku nekk da nga bëgg a bëri ak moom parce que da parce que ñoom ñëpp ay génération lañ mais xëy na yàlla moo ko dimbali ba nga xam ne nii tey mu am benn cër boo xam ne ci làmb ah am na ñu mu maaseel ci làmb wala ñu ko mag sax amuñu ko yaa ngi kon ama loolu mu bëgg tamit dama naan sport xel sport nangu na ko xel nangu na ko te itam adversité bi am na seen diggante ba pare kon yaakaar naa te Modou yooyu Modou Lo gëm naa ne am na conscience ne que bés dina ñëw mu bëreek Ama Baldé parce que xam ne adversaire de taille lañ ndax mbër moom bu demee ba yegsi ci tableau bi ñuy wax seen diggante jàppal ne lamb déjà boole na leen kon olofa ko wax nga waxaat ko léegi tànk suuf yàgg yàgg tànk suuf jaan suuf yàgg yàgg daje dina am yàlla na yàlla def nag bés jot bu leen lamb boole ñu war a daje bëre bu keroogee nag ñu xool ndax Ama euh, maanaam lan la ñeme ñu Modou Lo wala bu fekkente ne Modou moom lan la mën ci Ama waaw waaw boobaa ñu yónni yàgg rek comme ni nga koy waxee Babacar jógee fa dem seeti ki nga xam ne ni mooy Sa Thiès moom ñëw tey di wax ay bëgg-bëggam na yàgg-yàgg na teg loxoom ci li nga xam ne ni mooy couronne roi des arènes bi mais yemu ca tamit dafa jaaree di jox ki nga xam ne mooy frère am la daguère ay conseil ci combat bi mu jëm ak Boy Niang waaw loolu moom nee nañ dompat ci sot la bokk mais Sa Thiès sax parce que Ama dafa am lu mu wax loo xam ne tamit parce que nee na combat Modou Lo ak Eumeu Sène nee na Modou Lo day daan te nee sax moom xam na sarax bi nga xam ne nii mooy daan mooy daan mooy daan Modou Lo dana sarax bu yomb la ba tey loolu ci ay waxam la waa loolu nag <laughs> dañ ko koy nangul parce que li tax mooy moo ëmma ñoo dëkk te magam la Sa Thiès nag comme loolu mu wax noonu si couronne roi bi euh, comme li ñuy wax rek olof ne na borom bitti ku mbagg boo xar ba ay satu maa nga sa nga cay fekk te mbër muy takk ngeen mu di bëre rek li nga bëgg mooy bés ñu ne la yaayu yaay roi des arènes xëy na Sa Thiès loolu la bëgg ah li ko koy may nag xam na ko doomi mbër la mag yi am na magi mbër kon ci lamb la juddu moom yaakaar naa ne xam na yan effort la war a mën a def pour mën a nekk ëllëg roi des arènes xam na tamit pour nga nekk roi des arènes li mu laaj war na xam it li muy bañ su fekkee nag mu ngi ci loolu ah dañu yónni yàgg rek comme niñ koy waxee bu yàgg demee bu ñëwee xëy dinañu indi lan mooy lan la sax yàgg maar waa yàgg maar am nañu fi mu yàgg di <laughs> bu demee bu ñëwee rek xëy na dinañu indi lan la li Sa di wax ndax mën naa ne wala mënta ne hmm. conseil yi mu jox lak tamit c'est très normal parce que lak frère am la di grand frère la te yàgg gis naa seen relation vraiment ñu am relation bu rafet ñoom ñaar lool Sénégal yi teg nañ seen bët kon tamit bu koy conseil tey ci combat xam ne ci la jëm di ko ci doole loolu xel nangu na ko parce que ñoo bokk géejawaay comme ni ma la ko waxee léegi magam la pare itam ki muy bëril te yaakaar naa boobu day ngi digg géej waaye te mbër mënu koo faa freiné Sa Thiès war na mën a wax Lac de Guiers 2 lii ngay moytu ci Boy Niang ah, waaw parce am na fu ñu jaar waaw noonu la fa demee Aïssa waaw Babacar dañuy dem euh, ci li nga xam ne ni ñaa ngi koy xaar moo doon ñëw le 16 juin diggante Gris 2 euh, euh, la ñuy def seen face à face fële ca Kër Massar mu loo xam ne gëm naa ne ni ñaa koy xaar. waaw te dina war a mën a neexa ah, encore une fois muy Luc Nicolaï rek ñu xam ko di ko nuyu moog stafu Luc Nicolaï en ko rawatina nag suma mag suma xarit raay ba ak doomam Willy ñu ngi leen di nuyu ñoom ñëpp staf boobu Luc nag comme loolu mu def noonu defe naa ne dafa bëgg nag fi mu nekk nii jë gën a jaxal affaire yi te heure bi jot na parce que mois de juin presque dugg si na yaakaar naa le 13 juin la ñu war a bëri le 16 juin di mois kon maa ngi jégalu a jàkkaarloo ca Kër Massar muy war a nekk seen ñetteeli daje ndax boo xoolee ba combat bay doog a taxaw daje woon nañu fii ci benn hôtel Dakar dajewaat nañu fi Mbour mais suba nag day nekk ah, daje boo xam ne nii waxal ma wax la waaw kon nag suba daal comme régularisé nañ moom léegi moom amatul kii day xaar dugg kii xaar génn non non dañuy toog ñoom ñaar seq taabal bi giri wax rëg-rëg wax baat ak tontu ñu waaw ñu xam nag su bésu la saison suñu jotee nan maanaam lu la amateur yi lan la ñu war a mën a xaar mais léegi daal ñu koy ñaanal combat yi mu sumb pour le saison yàlla na ko ci yàlla génneeku. jàmm barke yonent bi sallallahu wa sallam mais di ko ñaanal tamit promoteur waaw waaw am na tamit beneen programme ba tey samedi muy combat bi Fallou Ndiaye di taxawal di diggante Ada Fass ak ki nga xam ne mooy Onde Lofou mu nekk tamit euh, ñaari techniciens yoo xam ne gëm naa ne suba dina ñëngale fële Iba Mar Diop incha allah waaw loolu moom du mën a ñàkk ndax Ada Fass bu ko xam-xam ne doomi Fass la euh, juddoo biir Fass yaakaar naa ne faas laa juddoo moom nekk mbër xel nangu na ko ndax Mbaye Guèye ak ña ña ko jiitu woon maam góor gi Ndiaye faga un faga booy naar Fall Mbiita Ndiaye lépp si Fass ba ci suñu papa Birahim Ndiaye ñu koy nuyu ak tafaage waaw kon aada Fass yaakaar naa dafa doon mbër gi ba pare itam vraiment mu ngi wane ay prouesse yu doy war ci côté technique di bëre di xale am am ñu ñu am si moom yaakaar mu war a bëri suba ak ondu la fu ondu la fu nag waaw ondu la fu euh, xëy na mën na mag aada Fass ci làmb waaye du mag. waaw il faut ñu bàyyi loolu xel parce que itam Ada Fass nañ ko yebe loolu ondu la fu mën naa bëre macha allah te liwul te itam am na gëm-gëm ci boppam kon suba Fallou Ndiaye daal moom itam indi na journée bu neex stadium Iba Mar Diop kon daal waa Ndiaye production itam démb euh, mu ngi may ne mu ngi waajal lu doy doy après korité gi moom Fallou Ndiaye pour fin de saison bi xam naa dafa bëgg dafa bëgg a def fin de saison boo xam ne feuille flamme gis seen bopp pour lamb ji mën a avancer. waaw Babacar bu ñu jógee ci Fallou dem ci ki nga xam ne ni mooy Assane parce que dimanche tamit euh, moom mooy ñëw fële ca andi li nga xam ne mooy tonnerre 2 ak Guine di drapeau maire Médina Bamba Fall combat boo xam ne tamit dina neex parce que Assane bi mu tàmbalee ba léegi journée yi yëpp macha allah. waaw Assane moom comme li nga xam lamb boo nekkee amateuru lamb ba xëy nekk promoteur saa yoo tëggee lamb. con nit ñi war nañoo mën a wax gongo assan xëy na loolu bokk nañ ci li koy gën a dimbali ak staff bi muy àndal ñu ciy nuyu ñoom Sowru Fall ñoom Cheikh Diaw ak yi muy àndal yëpp a ah, ñoom Xaadim Jaxate loolu mooy li nga xam ne nii moom la war a def dimanche ondu la kii ni ñu ko xeeti ah euh, daf tonnerre de maa ngi jégalu tonnerre de écrit Ndakaaru ñu xam ko di xale bu mën a bëre gin bu yof dëkk yof di espoir tamit bu topp ci tànki Malick ñaa ak ñoom Modja muy combat boo xam ne su dimanche combat bu nar a lay doon parce que ñu ñaar ku ci ne bëgg nga combat bi euh, encore une fois daal di wax ne que tamit gis nga moom i tamit saison ren ni mu ko ni mu neexee macha allah noonu mu ko ubbee yàlla na ko tëjee noonu ak jàmm di ko ñaanal ñoom ñëpp ah parce que tamit moom gis nga après Korité gi day ñëw andi lu doy waar xam nga ne fëgala ak double moteur ngi si ginnaaw di xaar ak yeneen affiche Pape Ndoye ñu ngi koy dégg mook fils de Balla ñu ngi déggaat yeneen combat taxawal na ko muy xam nga muy loo xam ne daal <laughs> saison bi daal macha allah quoi ni ñu nar a tàggoo balaa ñoo woor daal dina neex te xalaat naa buñ korité lay gën a neex waaw euh, bu ñu dellu see Babacar ci lay dàq parce que ñu bëri dañoo denc seen kii ba koor gi jàll ñu doog a mën a dellu siwaat pour jeexal li nga xam ne ni mooy saison bi mais dañuy jeexal euh, revue bi ak euh, lutte simple bi dimanche arène Adrien Senghor kii di Ngóoru production li nga xam ne ni mooy cinq cent mille francs Babacar mu nekk tamit gala boo xam ne dina neex ginnaaw mercredi bi moom tojoon na ñu demaat si beneen gala lutte simple rek si dimanche bi waaw premier mai bi moom mm, taroon na lool parce que 4 millions mu ngi woon Dakar 3 millions Ibamar ki nga xam ne nii moom mooy franc jël ko ki nga xam ne nii moom mooy Alpha Samb indi un million Adrien Senghor ordinateur jël ko dimanche ñu war a fa dem Adrien rek cinq cent mille ah loolu nag li ñuy wax mooy rek li simple yu tamit vraiment ñu ngi bay seen waar promoteur yaa ngi ciy def seen xaalis chaque weekend di nga gis ay ñett wala ñeenti tournoi loolu nag moo lay woon nekk daal actuellement moom lamb mu ngi dox macha allah bu baax a baax moo xam frappe bi la moo xam simple bi la bu dimanche itam Babacar ba tey fële ca Joal ñoom dañoo fa yéene sargal ki nga xam ne nii mooy seen doom Yaxya Jóob Yékini foofu lay am euh, ci Joal dimanche incha allah. waa loolu xel nangu na ko ndax nag euh, dëkk ci dëkk bi defar dëkk bi la ñuy wax balaa ngay laaj lu la loo dëkk bi defal yow loo defal dëkk bi te yaakaar naa nag ni contribué na ci turu Joal ak dëkkam di Joal ak ay Fadiouth ak dëkk yooyu ko wër yëpp parce que tamit def na ci làmb lu nga xam ne ni yaakaar naa ku ñu war a la ci làmb ci personnalité am comme ni ma koy waxee am faydaam ak tamit bëgg sport bi mu koy def ci durant carrière am gis nga ne caaxaane wu ci dara moo tax cër bi mu ci am mu dem ba am ko bi mu ko bàyyee tamit yaakaar naa tey la cër bi gën a ñëw loolu nag sportif bu ne bu nekk di compétir war nga ci jàngate lu bare bare bëri parce que ay satu boo nekkee ci mbir di la topp même boo ko bàyyee war nga continuer sàmm loolu loolu nag la koy may mooy nga xam benn sa bopp xam li nga war a def xam ñi nga war a jëflanteel xam fi nga war a dem xam li nga war a wax loolu am solo boppam mi nit day xam boppam gëm yàlla rek moo ko yeyoo mi nit da xam sa bopp maanaam xam sa bopp mooy ay satu lii laa war a def dama koy def lii waruma du ma ko def boo wéetee doo ko def parce que waru la boo wéetali ko doo ko def parce que waru la jomb nga ko kon Yaxya daal exemple la si làmb comme ni ma koy waxee rek moo ko mel ni Mohamed Ndao Tyson ay ñoom Tafa Xaadim Ndiaye Lac de Guiers Boy Kayre ay nit la ñu wax bëri nañ ba bàyyi bëri mais vraiment ay royukaay lañ ak ñi leen magoon quoi macha waaw baab Babacar dañ leen di ñaanal jàmm di leen ñaanal gudd fan ak wér-gu-yaram mais dañ koy ñaanal képp koo xam ne rek yaa ngi suivre Leewtoo TV wala képp koo xam ne rek yaa ngi Sénégal ak ci àdduna lu ko wër di leen ñaanal jàmm di leen wax euh, dañ leen di jox rendez-vous rek Babacar lundi ci benn revue de l'arène balaa boobu dañuy nuyu Mame Talla ci caméra bi ak équipe bu Leewtoo TV bi yëpp di nuyu képp koo xam ne rek yaa ngi bëgg Leewtoo TV. waa dañ leen di nuyu comme ni nga ko waxee rek parce que tamit olof nee na. ah feccum liir su neexee nday jaatee ca mbagg ya te bu amee ñu jàpp suñu ay mbagg mooy ñi nga xam ne ñooy internet yi jënd seen connexion yi di ñu seetaan fu ñu mën a ne ci àddina bi xam nga saa yoo dugalee revue ñu xool ko ku mel ni tuuti yaay Sarr du ko fàtte parce que lu baree bari parce que jigéen la nekk ay bitim réew di daan dooleem ngir dimbali famim kon maa ngi koy ñaanal yàlla yàlla na ko yàlla kattanal moo bépp doomu Sénégal bu nekk bitim réew rawatina Khady Rose Ndiaye wala ñëpp ay soxna la ñu sama yaay soxna ana Cheikh Bintou Fall ah ak sama benn frère wala sama doom baay sa bu ñuy York mais tamit ki nga xam ne moom mooy Mor Mbuub dëgg nekk Paris euh, démb mu invité woon ma añ ay satu maa ngi koy nuyu di ko waaw maa koy nuyu bu baax a baax a baax di nuyu ñi nga xam ne daal ñu ngi ñuy suivre fu ñu mën a ne parce que gis nga gars yi nii da ngay gis seen commentaire yi tout le temps gis nga tuuti yaay Sarr dem bokk na si njëkk a ñëw Benzema dem maam Abdou maam maam Modou di taal bi mbay si Abdou xam nga ak ki nga xam ne yaaya mist gars yëpp ah bu ñu limbee dinañ juum ak lu yàlla def moom nee na lu yàlla def moom nag nee na man la tuddee Babacar borom yaa ngi dégg kon lu yàlla def maa ngi nuyu di la di nuyu képp daal ku mu mën a doon di balu ñëpp ak si àjjuma ji di baal ñëpp ak mais encore une fois rek di nuyu suñu papa Birahim Ndiaye ndax bërki dem dañoo daje ak moom 2STV mu ñaanal ñu ci li ñuy def encouragé ñu rafetlu ko te moom kilifa la du wax katu u kon Papa Birahim ñu ngi lay nuyu di la ziar li wax ne ñu ngi lay bàyyi xel bu baax a baax saa bu ñu juumee rek woo ñu jubbanti ñu ndax nit matul Aïcha waaw ci loolu ñu jox leen rendez-vous incha allah lundi si benn revue de l'arène